asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw sëñ bi maa ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal tawféex di la ñaanal jàmm di ñaan bokkaat bi fekk leen ci jàmm ci dara ji sëriñ Touba dégg naa vocal bi ma envoyé ñaareel bi gis naa vidéo bi nga xamante ne nii. moom lañu wone ci kër Sëriñ Saliou ci mbar moom moo ko monté woon luñ ko dindee dee yi am ndox <clears throat> euh, dégg naa commentaire bi yëpp euh, loolu nag li nga xamante ne ni moom laa ci mën wax scientifiquement euh, mooy ñun sunu réew mi dañu amut scientifique comité scientifique ay politiciens ñooy wax ak ay ministre euh, te bu ñuy wax dañ ko dul xalaat li ñuy wax ci waxu waxu scientifique loolu soo ko déggee mooy euh, jumaay tuuba bi dafa am num bindoo ci tuuba jumaay Tuubaa bi point baa la nekk jumaa ji ci jëmmi jëmmi boppam jëmmi jumaa ji ci boppam point baa la nekk hmm, soo demee corniche su Sëriñ soo fa tëralee tuyoo soo ko sottee ci jumaa ji la jëm directement soo demee gaarasu daaru euh, euh, waaw boo demee gaarasu daaw soo fa tëralee tuyoo boo ko sotee ci jumaa ji la jëm directement boo ko dëgmalee jumaa ji boo ko sottee rek day ñëw day dem parce que soo demee gaaraasu daara jolof boo fa tëralee tuyau soo ko sottee si jumaa ji lay jëm directement soo demee euh, baylaat fi jox corniche baylaat soo ko defee la même chose soo demee euh, ño foofu la foofu la affaire bi yem maanaam foofu la yem soo wëlbati ko jëm kër sëñ ñang euh, boo ko duggee wet googu jaar euh, foofu fu mel ne xaw mel ne marché bi génnee mbal ñoo moom ak jumaa ñoo tolloon niveau loolu lan lay firi mooy sunu borom dafay jël day lal benn laltaayu suuf bu ñuy wax suuf imperméable suuf soosu nga xamante ne ni ndox du ko romb moom lay njëkk a lal doo ko tegale yeneen xeeti suuf dina teg ban dina teg kew dina teg suuf su nooy dina teg suuf su mel ne këriñ noonu la koy tegalee di ko tegalee di ko tegalee ba ci kaw fi nga xam moom moo foofu la suuf si yam maanaam muy dénd jumaay Tuubaa nag loolu ma la wax ñu mu wër ko yëpp da koo sut boo kon buñ doon wax jumaa ji fi jumaa ji nekk ay jamono yu njëkk yi da daan taa bi nga xamante ne nag ñu ngi liggéey jumaa ji jumaa ji ci boppam dañ ko ràmbale biñ ko ràmbalee moo sut kër sëñ Abdoulahat ba ci ginnaaw kër sëñ Abdoulahat ba ci kër Baara ba ci marché marché bi moom moo sut résidence Cheikhul Khadim ba ci kër yi sant jaxate yi moom moo sut kër sëriñ saaliw ay nu rahmati yooyu yëpp moo ko sut moom moo sut barab yi ràmbale boobu moo ko sut euh, jamono yi samp mbaar yi mbaar moomu sax toy na ci exemple jamono bi nga xamante ni ñoo koy samp mbaar mi quarante mètres la woon bi ma génnee sama trait de niveau tànk quatre mètres quatre mètres la woon xaw ma trois mètres cinquante bi ma jëlee sama trait de niveau diviser mbaar mi ne damay suul quarante centimètres bi ma demee ci penku bi bi ma sampee mbaar mi dem muy dem penku bi tànk yële daa dugg na ba mbaar mi desul sax euh, un mètre cinquante nga xam damaa mujj modifié waat bi may samp tànk bi yëkkati mbaar mi ba nga xam ne ni mat na deux mètres deux mètres cinquante ca kaw ca penku bi ma def sama trait de niveau génne mbaar mi nga xam tànk yële dafa tege ci kaw suuf ma ñu ñu jël tànk yooyu yóbbu ko atelier ñu modifié waat ko daggaat ko dugalaatal ko quarante centimètres pour mbaar mu tànk yële mën a taxaw nga xam ni diggante quarante mètres rek mbaar mee mënut maanaam amoo trait de niveau soo jëlee soowu jumaa ji soo taxawee ci tànk bu mujj ci soowu jumaa ji escalier bi mujj ci soowu jumaa moom ak immeuble sëñ bi sëñ jiili Mbàkke def sëñ jiili sëñ jiili mbay def ci résidence Cheikh Khadim bi ñoo tolloo niveau mais ministre bi euh, li mu expliqué da ko expliqué mais expliqué ko scientifique xam nga nit boo koy leeral danga koy leeral ci wàllu scientifique léegi nag comme que li wër jumaa ji ca ca mbaandaam sept kilomètres dafa sut jumaa ji ci digg bi kon boo ko xoolee dafa ma jumaa ji dafa mel na bindu mbalk moo xam ni weti ñoo yëpp digg bi xóot mais ñoom nag yàlla dafa def ñoom bi ñuy liggéey jumaa ji ak tawféexu Sëriñ Tuubaa ak ñoom xam lu ñu xamagut te dara ñëwagut moo waral jumaa ju ñu ràmbale ko ba nga xam ne daanaka niveau bi kawe na mooy waral boo tollee sax ci sow jumaa ji ca kon sëñ Cheikh da ngay mën a gis jumaa ji xam niveau bi dañ ko yëkkati léegi nag kon nag liy ceinture jumaa ji ci kër yooyu kër sëñ Maam Mor xam sa diine ba léegi ndox maa nga fa buy taw comme que suuf si ci suuf dañ ko laltaaye benn suuf su imperméable mooy suuf soo xam ndox du ko jàll loolu tubaab nappe phréatique la ko tuddee nap phréatique nag mooy mboolem lu mu taw ci kaw suuf du jàll du jàll suuf soosu mboolem taw bii ngay gis nii du jàll suuf soosu léegi nag dañuy seet point yi gën a baax fa lay dem génnee fa def ab lu ñuy wax déeg moom lañ tudd olof tuddee déeg mu tudd muy la mboolem point bàyyi ci àdduna bi yëpp suñu dajee fenn foofa lay ballee nag def ko déeg comme que nag jumaa ji moom dafa sut yeneen kër yi moo tax kër yooyu yëpp ba fii may waxe yow nii bërkat semaine bi rek dem naa kër sëñ Mamoor xam si diine ku neex na nga fa dem di ko xool ndox maa nga fa ba léegi nii semaine bii rek laa leen monter beneen pompe léegi nappe phréatique c'est la retenue des eaux pluviale ndox mi muy taw ci àdduna ci jamono ji yëpp day ci comme que nag màggal gi weesu dañoo génn ci période nawet te bii ñuy del si day nekkaat ci période nawet ku yóbbu na nga séntu am ndox mu taa mu bari ku yóbbu na nga séntu ndox mu bari loolu nag moo wara nab bii day dem di génn léegi suuf si màndi na li mu laltaayoon mu ngi koy duy di ko duy di ko duy di ko duy di ko duy ba léegi màndi na cinquante centimètres la wala vingt cinq centimètres ci yenn côté yi mais am na côté yoo xam niveau ngi niveau zéro génn na ball na léegi nag bu tawee dewen nag moom loolu mooy la solution est saturée maanaam ndox ma fees na naan na ba doyal fa mu waroon ball di fa jëm si mooy fii jumaa ji nekk xunti xaw a xunti nag dem leru leer dem romb kër bàyyilaat googu dem marché occas topp fi ñuy wax guy siyaar dem mbal noonu la demoon loolu mooy yoonu lakk bi nga xam ne moo nekkoon Touba parce que ñoom bu ñuy wax du ñu revenir en arrière demaat gëstu ci wàllu histoire nan la Touba bindoo woon ci wàllu ndox ndox yi nga xam ne moom mooy ndox naturel yi fi sax bokkut ak ndox dex bi nga xam ne moo fi jaar bi maayeen jaari googu bokkul ak bi bi saison sont des lacs yoo xam ne c'est la retenue des eaux pluviales fi mu koy dajale mooy fii si jumaa ji ne mooy point centre bi noonu la mbir mi tëddee. moo tax léegi nag forage yooyu ñuy wax nag parce que wax na trente hectares c'est vrai dina nekk trente hectares ndax boo jëlee corniche sëñ Cheikh soo ko euh, vingt huit garage ancien garage nga rëdd ko mu wër ba ngay dem garage Daara Jolof ba àgg ba àgg hmm, fii for corniche baylaat corniche laat loolu bàyyi kër sëñ ñaan parce que foofu moom tamit point bas la kër sëñ ñaan ba ngay àggaat garage ba ngay ba ngay àgg ci raay bi raay bi raay bi foofu it point baala foofu la yoonu ndox moomu jaar dem daar salaam point baa la loolu da nga koy expliquer nit ñi scientifique laltaay bi sunu borom laltaay nag superficiel léegi nag soo rombee su boo rombee lu dëgër loolu nga xam ndox mi mënu koo jàll yaa ngi doog a dugg nag ci maïtricienne lañ koy tuddee beneen xeetu nattukaay la boo xam ci la ñuy natt nag doog a xam lan ngay dem pour na sama digganteeg ndox mi ndoxu naturel bi jaar mooy yoonu ndox ya ñaata met la ndox mii ñuy wax ndox muy ball nag bu ko gaa yi jàppee ay ndox mu ndoxum du ndox mu ndoxum forage du ndox moo xam ne dafa kéemaane c'est la retenue des eaux pluviales suñ toogaatoon léegi fi mu nekk nii ñaar fukki atak juróom yoo xam ne dañoo tombeek mooy bekkoor taw amatul rek dootoo gisati ndox mi mais actuellement dañoo toll ci nawet buy tegloo ndax daaw daaw jéeg taw na daaw taw na ren incha allah buñ defu ndànk ci biir nawet ci biir màggal gi la ñuy ah dana ko def juróomi at ndax boo fàttalikoo 1993 sëñ Demba xam nga ci dara at yooyu toog nañ juróomi màggal yoo xamante ñun ñii ñëpp ci màgg ci ndox lañu daan màggalee. période ba romb dafa ñëwaat ndax loolu ce sont des cycles infernal day dem di del cycle la boo xam day dem di ñëw suñu su suñ ko gisatul mu tudd bekkoor su ñëwaatee muy at mu ndox mi bari noonu la mbir mi tëddee moo tax boo koy leeral da koy leeral scientifiquement ci xam-xam bu leer euh, dañ ko bañ a def euh, xam-xamu loo xam ne dañ dañuy wax nii rek wërale nit ñi pour tiital leen mel na luy yàq seen forage yooyu nag muy muy muy muy ñuy wax nag dañ ko war a samp ce sont des méthodes sussoirs day nekk système boo xamante ni nii système buy manque la ndax comme que ndox mi dafay am fu muy daje am fu gën a xóot da ngay dem ba gën koo xóot ndox ma daw jëm fa nga pompe ko sànni ko fu reen fu gën a sori système bu simple la du dara def naa ko ay immeuble yoo xamante ni souterrain ba day am problème dafa am sax nu ma koy liggéeyee Euh, moo tax sëñ bi ma delluwaat envoyé waat la vocal bi te dinaa la ko dessineel nan la bindoo ci wàllu suuf ndax bu doon yeneen réew yi ay scientifique lañ koy jox ñu dem jëlaat ay appareil ak ay jumtukaay defar ko en grande dimension liggéey ko ba mu bind noonu ñu sotti ndox mi ñu gis ndox mi ni muy doxee ak nu ndax lu tax mu def nii ñu seet ngeen résolution la def ba génnee ko loolu lu yomb la mais ñoom a ah, ñoom dafa am benn système bu ñuy doxeek waa Touba di leen tëgg sëlëm di leen bañ a leeral li ci leer lu yombal regle la li ko dalee kër sëriñ Touba gi wër kër noonu def ko benn cercle lu toll noonu nga def ko benn cercle def ko ay forage muñ ko pompé fukki fan ak juróom balaa man ñaari weer mboolem loo gisoon foofu mu nekk ci nappe phréatique bi day wàññeeku daal ñu tànk nag sotti ko fu mel ne euh, fu mel ne ngaabu wala fu mel ne ndokk ndax foofu tamit yoonu ndox la dex la foofu mooy dex gi nag dex gi nga xam moom lañ tuddee dex dex la mais lii lac la woon lac scientifiquement noonu la noonu la mbir mi tëddee boo bu fekkoon jumaa ja dañ ko lelli woon newu fa foofu tey jii dex déeg lay doon du doon dex déeg la jërëjëf ñoo ngi dellu di jéggalu bu baax te di leen ñaanal jàmm siyaare bu baax a baax bi ma yónnee vidéo yi laa ci xam lu bari ndax bi màggal journée xasida yi maa kër sëñ Mamor xam sa diine ndax kër sëñ Mor may lañ doon defee journée xasida yi foofu laa ko organisé woon sama daayira waa kuréel yaraax yëpp ñëw fa mañ maan maa nekkoon foofu doon liggéenti ndox mu taawoon bi nekkoon foofu boobu wa léegi nag jógewu ma fa te ndox maa nga fa ñun ñoo fexoon ba communauté rural bi ñëwoon fa euh, pompel ñu ko dugal ñu ko ci ci égout yooyu mu daal di dem te 1993 Serigne Saliou initié woon na système d'évacuation des eaux pluviales mi ngi kër sëñ daam atta moo ko wonoon ndax jumaa ji ndox dootu fa taati waaye day rejeter ndox ndax jumaa ji boo calculer li mu li mu dënd bu ci ndox mi wàccee amul fum ko yóbbu da koy sànni ci wetam wet googu ko doon sànni nag day capacité ndox mu baree baree bari bari bari doon jaaxal nit ñi leen jaaxalee ci ana yooyu leen sëñ Saliou woo defal leen système de pompage ndox moomu ci lay génnee ay am na ay pax yoo xam moo wër jumaa ji nii ci ci ci ci ci ci kii bi euh, ci miir clôture bi pax yooyu boo ko xoolee yëpp dañ ko dirigenté woon mu jëm ci kër sëñ Dame Atta ñu def fa pompage boo xam moo ko doon yóbbu ca kàmb ya nekkoon ca gaaru ma gaaru ndaw fii ca ginnaaw fa ñu kàmb yooya foofu la ko yóbbu woon bañ koy tëral sax am na ci wat woo xam ni dañ ci xawoon a daanu sëñ bi woo leen ba ñu ñëw mu wonaat leen nan lañ koy defaree tuyau baa nga fa fa la tëdd dem ba kàmb ya ñaareel beneen bi mu defaraat sëriñ Saliou Mbacke na nañu yàlla taaf ci barkeem ñaareel bi mooy bi mu déparé waat soowu jumaa ji résidence bi dem ba gaar bu ndaw nga xam ni égu ko def beneen bi mu tàmbaliwaat ko que euh, sëñ Tuubaa gi ci soowu gi dem ba fi ñuy wax ñaari étage système égu la wonoon sëñ foofu nit ñi ne leen bu ngeen di defar ndox wàllu ndox ak lépp loo xam dafay jëm ci la la collecte des eaux usées ak la collecte des eaux pluviales ci égu jaar égout boobu tey ji oto xaj na ci chinois ya ko doon def loolu maa ngi ko fekke fekke naa bële fekke naa bi liit lu ma wér la lu ma xam la ndax scientifiquement dama dem ba découvrir ndax damay dugg ci àll yi kon lu ma a régler la lu solution bu ñàng la déwén nag moom képp koo xam sa kër wër na jumaa ji na nga waajal ndox na nga waajal niveau niveau bu kawe jërë ngeen jëf ñu dellu jéggulu bu baax rek te leen di bu baax jërëjëf sëñ